am yëgukaayu ngëm wala am yëgukaayu ngor képp koo xam ni ki yàlla dénk dénk na la xel ngay xalaat di ko jëriñoo ci kaw ak maandute am nga problème ci réew mi parce que yaa ngi gis luy bucc ci sa xol te xëy na amagoo ci pexe waaye yàlla moom dajantul nelawul tëlewul lottul wuutewul jànnaxewul du jaawale jëfi kenn ak moroomam dégg naa ay nit euh, ne ñooy dañuy jóg def suba samedi marche de soutien au président nee na dañuy marche ngir jàppale président ci li ñu ngi xaar xëy na su leen desee tuuti décence wala tuuti élégance bi may faral di wax di ngeen fexe ba boobu moom du am waaye nag duma tiitalit nag du ma du ma bett ngeen def deux poids deux mesures bàyyi leen ñu marche encadré leen ko ñàkk leen ko autoriser moom ay bett waaye nag wait and see waxoon naa leen fi fii ne leen am na ay nit ñuy taxaw naan Ousmane Sonko mi ngi dialogue ak Macky Sall Ousmane Sonko mi ngi ci suuf mi ngi nangam nangam Ousmane Sonko dana dem nangam waxuma Ousmane Sonko Mimi Touré rek Mimi nee na moom demul dialogue te yaakaar naa ne loolu mooy màndargam nite ñoom ñi nga xam ne nag ñoo doon wax naan mi ngi dé mi ngi négocier mi ngi waxtaan ak mi ngi dialogue yéen ñëpp A ba Z mag ndaw nag góor ak jigéen yéen ñëpp seeni fen teer na seeni fen teer na vous yu suqiku bi jaaw waroon a ragal yàlla seet seen digganteek seen trayu bàmmeel ndax li tax ngeen fen mooy ndeyi mbilli ji moom Macky Sall moo ne moom waxula ak Sonko te yaakaar naa ne bu ko defoon waxtu wi fekk na mu koy brandir di ko wax ca kaw di ko wone ndax fiñ toll nii lu mu am lu mu mën a def argument dina ko jëriñoo moom nag ab tooñkat la ndax dégg naa ko muy wax naan intérim intérim mooy tey jii président assemblée nationale wala ñoo xam seeni feem ak seeni pexe mu jël yëfi yi dénk ko ko en attendant kooko war a toog xëy na juróom benn weer pour mën a lijjanti nu muy defee ay élection man am na nit ñoo xam ne ñii dama naan est-ce que ñii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mënees na leena a tudde doomu aadama ndax am na façon xalaat ak façon jëfin ak façon jëf yoo xam ne yii un être humain digne de ce nom du ko def déedéet parce que xam naa nga noonoog nit di ko jëflanteeg yenn xeeti nooneel waaye dafa am limite boo xam ne bii fa doomu aadama warta jéggi Macky Sall de bu demee ba àggal mbir mi ci war a jël intérim koo xam ni kii moom la ñuy dénk suñum réew parce que moom jeexal na lànk na nee na du organiser élection yi fii ak fin mars te bu ñu àggee début avril nguuram jeex mu jural ñu kon muy jël yëf di ko dénk keneen loolu c'est être vraiment cynique wax dëgg yàlla mooy amoo xol am loo rafet xol boo xam ne bii moom ngay jëfee mooy am na koo xam ni moom nga bëgg a baare am na ñoo xam ne ñii la dal moo la naqari mooy fexe nga ba tàyyi saa yoo fexee sooy bunt boo tëj suñu borom ubbi beneen am na loo xam ne kuy nit soo ko doon def ngay fexe di sooy di fexe di sooy di fexe di sooy la la waroon mooy nga sëpp say jàjj nag te xam ni yàlla moom àndul ci say pexe man su la doon xelal mooy loolu nga dem bàyyi ñoog suñu réew ci ngor niñ la ko joxe woon joxe ñu ko ci jàmm noonu ñu la ko joxe woon keroog ca 2012 dégg naa mu naan ci njekk kenn du la ko laaj ci njekk yow yaa ko war a delloo ci njekk yow njekk liñ la ci war looloon def nañ la ko fal nañ la fal nañ la jox la tous les moyens yu ñuy doxalem réew kon boo ñu koy delloo yaa ñu ko war a delloo ci njekk kenn du la ko laaj ci njekk amuñu luñ lay laaj ci njekk li jekk mooy fay naar bi xoromam comme tout être humain normal man gëm naa ne Macky Sall am na conscience te ku am conscience am nay jëf aki wax yoo xam ne yii ak i xew-xew yoo xam ne yii bu dee yow responsable nga ca dootoo nelaw doto nelaw te ñetti néew yi deux mille vingt quatre yii rek lépp ci de ndoddu Macky Sall la tego parce que moom ba mu nee day annuler day reporter élection yi ci la loolu tàmbali kon il est intégralement entièrement responsable de ça loolu ku wax leneen lu dul woolu seeto sa digganteeg sa boroom déedéet man duma sosal benn mbindeef yàlla yàlla yàlla mu ci yàlla musal duma ma sosal kenn dara waaye bu waxutoon wax jooja émeute yeeg manifestation yi du am kon nëgë ni fekkoon na ñu naan ña nga ca suñu feewu campagne électorale di waaja dem élection te loolu lu ñu nasoon la wax ngeen ko Abdou Latif Coulibaly wax na ko kenn waajalu loon élection kon ba ngeen nasee ñàkk élection yàgg na waajo lu leen dara luy laaj élection kon loolu lu ngeen lañ lancoon bu yàgg la kon ñooñu nga xam ne ñoo dee ci kii bi bu fekkoon ne Macky Sall reporté wul ñooñu du ñu génn di ëmët ëmët di wala ñuy revendiquer dara ba ñu leen di tiire ay bal wala lenn di ci am ba tey jii ñu wuute ah bakkan de fu waxtoom jot mu dem waaye kon xëy na duñu dee ci deewin wii deewin wu ñaaw wii wu metti wii wu tiis wii kon loolu lañu war a wax nit ñi loolu lañu war a wax nit ñi Macky Sall lu waay mën a wax lu dul tooñ nañu daal waxoo dëgg tooñ nañu toññar bi nañu tooñ nañu toññar bi nañu luf ku fi taxaw di ko wax nag ay élection ay euh, négociation euh, toog waxtaan yooyu yëpp yooyu yëpp yokk tooñ la képp weesuwu ko yokk tooñ yokk tooñ fi mu ne lenn képp la Macky Sall mën a wax au moins defar li fi li fi li fi li li ci des mooy élection yi bés sàngam la soxlawul muy conserté kenn wala muy woo kenn di wax ci loolu bu ne bés sàngam la rek moyens yi ñu def ko ci ci terrain bi rek élection yi ñëw kon loo ciy wax ak kenn loo ciy wax ak kenn respecter la calendrier électoral loolu képp moo la dese leneen te yaa ko gën a xam nit ñi xam ko bu fuuf ni fa ngay jaar ba loolu sotti ko defee ñu yemale kàddu yi fa beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu